Elhadji Seyni Diouf international sénégalais. am ah, nañu ci Bambey. Ah, ah, c'est bon. alors lan mooy def sa sentiment premier ak ban message ngay renvoyé waa Bambey. d'abord dama koy remercier moom mi nga xamante ne moom moo waral bis bi ndax euh, comme ni mu koy waxee rek. waaw loolu kon ñoom ñoo sonal waa Sénégal ñoom ñoo sonal si ñun ba ñuy def tey jii bi mu nekkee dafa bëri international ba tey jii nga xam ne tey jii ñu ngi liggéey si wàllu football. Elhadji nag mën nga def lu dul remercier ko parce que. suma yaram dafa daan parce que mun naa wax ne ñii ñu mu nekk si biir bi ñoo ko doon toog di supporter jël ay doole ak seen ay xaalis di ko def ku xam ku wax footballu Sénégal nag wax ni dafa am ñu mu àndal ñoom ñoo daan jël seen seen xaalis di saraxee di def ay affaire pour ñu am ndam mu ngi amoon temps nag peut être que Bambey xaw ma fi doon ñëw fii remercier leen parce que bëgg naa Sénégal def tur bi yëpp remercier leen ndax tey jii exemple moo leen di jox rek ma jàppale woon noonu wër na ma benn sax ma ko am bay am ñaar donc c' est important ma ñëw remercier leen wan ne leen ma ne ñoom ñooy yem ba pare xale yi nga xam ne tey jii ñoo ci toll war a fubal ñebe ñu jox leen suñu conseil yi nga xam moom la ñu bitim réew indi donc mënu ma lu dul ñoo remercier suma xarit suma doomu ndey El Hadj Dia ndax man nit boo bëggee sa dëkk bëgg sa gox dama leen xam ndax euh, bu ñu tasantee Europe. Bambey lay wax mënul tasante Dakar Bambey lay wax chaque semaine laa dugg si au moins trois quatre fois Bambey rek a la preuve bi ma dugg seen premier mot bi ma njëkk woon mais El Hadj Kassam bi nan lañ ci xale yi am ay talent ba pare di football ci stade yi doon si la ñoom bokkaan ñi doon football ñoom si la ñu football yi si la ñu doon football léegi nag dañu war xale yi ku leen gis xam ne bëgg nañ ko loo bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg tamit bu fi infrastructure yi nekkul doo dem c'est important li may wax rek di lancer appel euh, monsieur le maire wax na ma ko sànq nee na ma affaire yi bu déwoon dina pare bu pare nag incha allah ñun xale yi ñu ci dugg di wax leen rek ne leen li may wax jeunesse Bambey moo di nañu gëm seen bopp lii El Hadj Diouf gëm boppam ba tey jii ñëw def lii fii mënoon na toog Dakar te du te du si piscine wala nekk li may wax jeunesse Bambey aussi nit bu la jàppalee da nga koy jàppale ndax kii aussi dafa am devoir de résultat ku ko xam-xam ne politicien la ndax ko rey politicien la dafa am devoir de résultat président mu ngi koy bàyyi xel dama bëgg waa Bambey yëpp tamit jàppale ko ndax nit ku baax la il est jeune te yéene na leen ko aussi ndax kii bu demee bu bu àggee war na may li may wax nag la jeunesse moo di nañ gëm seen man bi ma dëkk bi ma dëkkee Balakos kenn xamul woon Balakos football dama ko jëloon ma def ko liggéey def ko métier di ci jaamu yàlla ba pare nit ñi tam war na ci jàppale loolu taxoon li may wax waa Bambey ñii réussir si ay Bambey ay Saint-Louis ay Tambacounda yooyu la ñuy jógee mais boo gëmul sa bopp tam doo dem adduna boo gëmul sa bopp doo dem li may wax xale yi rek nañu gëm bopp mel na seen grand frère yi fu ñu àggale football bi ñoom it ñu jël ko foofu yóbbu ko foofu ñu jël Sénégal. voilà ban euh, li may wax rek moo di comme xam nañ ñëpp xam ne ni euh, instant bi ñuy wax nii Coupe d'Afrique leen jëm. te Coupe daf lañ jëm te ku Coupe d'Afrique nag Sénégal tey jii lu tax ba léegi nii gañu moom dara cohésion moo am woon jàppal fii bàyyi fii ñu naan kon football yi maanaam ñu naan ñoom amoon nañu ay problème léegi nag ça va beaucoup mieux léegi wax nit ñi moo di comme ni que le président de la république bëgg le ministre des sports bëgg ko ko et aujourd'hui avec le président Idrissa Seck ñoo ngi waxtaan pour mën jàppaloo ñun ñëpp pour mën dem Égypte incha allah dem jëli coupe d'Afrique bi indi ko fii may ko waa Sénégal. dañu laaj ay coow sa diggante ak euh, Aliou Cissé prestation bi. la vérité moo di déggoon nañu ay coow. ay coow il faut que ay ñaar ñu bëggante wala ñaar ñoo nga xam ne vivre nañu des affaires il faut que ay coow am ci. coow am na mais nag heureusement que muy Aliou muy man ay nitu tempérament lañu ay nit yu nga xam ne li ñu xalaat lañu wax wax nañ ko fi ñu war a waxee après comme ni wax génn na ci vestiaire yi aussi heureusement que le linge sale a été lavé entre nous. mais man xam naa ne Aliou mënu ma jàppal dara man moom mu ko jàppal dara réussite am laa bëgg moom it xam naa ne sama réussite la bëgg et incha allah bientôt daanu topp ay kilifa dina ñu topp ñu topp ñu xool nan la ñuy liggéeyee ñun ñëpp pour Sénégal mën a am ndam. incha allah d'ici peu de de toute xamee ne mën na wax équipe nationale Sénégal sax ba ci boole sa tur loolu rek da nga koy sant yàlla donc man li may wax daal moo di footballu Sénégal kenn mënu ko def sans El Hadj Diouf ndax ñu gagné daan ma laaj ñu bañ gagné daan ma laaj donc nag jàmm ji xam nga mooy lan dañ ñaan yàlla jàmm muy man muy waa fédération muy le ministère muy le président ñun ñëpp de la république ñun ñëpp ñu mën liggéeyandoo incha allah parce que li gën am solo c'est que mooy xale yi ñu indi leen pour def indi leen ko commencé. suñ boroom ne. yaakaar naa ne Mamadou. Ibrahima. Ndeye tey na nga gisee li nga xam mooy final. sant suñu borom. final bi neex na ndaw Bamba yi bég nañ ndaw Bawol yi bég nañ El Hadj Ousseynou ñëw na le maire de Bambey mi ngi nii Abdoulaye Fall ñëw na jeunesse Bambey ñëw nañ les femmes ñëw nañ mooy na Bambey bég mooy euh, lii du guléet yàgg naa ko def lii du guléet lu ma tàmm la lii du guléet yàgg naa ñëw ci stade bi waaye damay profité pour wax kilifa diine yi wax kilifa aada yi nañu woo opposition bi waxtaan ak ñoom ndax gis nañ ne opposition bi ñi ngi taal ay biis ñi ngi taal ay organe de presse ñi ngi xaste ñi ngi saaga ka loolu nag ñun waa Bambey duñ ko nangu élection yi le 24 février nañu nangoo dem ci làmb ja bu ñu dëggee ci làmb ja yàlla xam doy na waaye taal dëkk bi moom ñun waa Bambey duñ ko nangu dinañ taxaw tem jàkkaarloog ak képp ku bëgg a taal dëkk bi. da wax ni opposition bi ñoom ñoo bëgg taal réew bi ñu ngi toj ay biis di menacer ay journalistes di saaga di xaste dama bëgg kilifa diine yi interpeller opposition wax ak ñoom maa ngi interpeller man ak waa Bambey le ministre de l'intérieur pour wax ni bu mu nangu kenn ku taal dëkk bi loolu nag ñun waa Bambey duñ ko nangu élection nañ jëm au 24 février. xam nañ ne langue gi ñu neex waaye opposition moom duñu nangu mukk Bambey bi de kenn du ko taal. kon yéen a ngi taxaw euh, pour jàmmarloo leen nga ne moom mooy. ñu ngi taxaw tem pour yamal opposition bi ñu ngi taxaw tem pour interpeller ne dootuñu nangu kenn ku taal bis dootuñu nangu kenn kuy menace ay journaliste dootuñu nangu kenn ka nga xam ne day xoq taalaate. loolu ñu ngi ñaan ministre de l' intérieur mu jël disposition bi yëpp. ñu ñëwaat ba tey si li nga xam moom mooy si nawetaan bi El Hadj ñu gis li nga xamante ne mooy terrain bi stade bi euh, municipal bu Bambey euh, ba léegi nii defaraguñu ko hmm, lan la si ngeen si taxawee en tant que. municipal Bambey stade bi loolu yaakaar naa ni lu weesu la ndaxte appel d'offre bi approuvé nañ ko lancé nañ ko ba approuvé ko ba approuvé marché bi que incha allah fii ak ñaari weer dinañ ko defaraat. ak gazon synthétique loolu ñu ngi koy sant njiit réew mi bu baax a baax a baax a baax moom mi nga xam ne dafa fonk ndaw yi fonk sport fonk la jeunesse loolu moom ñun waa Bambey loolu wax dëgg caa ñu ngi ko sant ndaxte appel d'offres gis nañ ko lance nañ ko la soleil. El Hadj Dia nan lay bi gi la élection yi waaj. yoon yoon mayu ma ci waxtu bi ma wax ci fóoti waaye buñ si duggee jox naa leen rendez-vous ngeen ñëw Bambey di ngeen gisal seen bopp yoon mayu ma ma wax ci politique fi mu toll nii waaye daal. Bambey daal ñu ngi sant président ndax dimbale gi ñuy dimbale ci stade bi dimbale gi ñuy dimbale ci assainissement bi dimbale aussi bi ñuy dimbale ci formation ak ci liggéey. lan mooy kàddu bi nga xamante ne moom ngay tënk sant waa Bambey Moussa le maire maa ngi la sant sant sama amazone yi sant les jeunes commerçants les étudiants les élèves les femmes les ouvriers gis naa seen taxawaay tey président dina yëg yéen a gi nga am ci moom. président bëgg na ci yéen que loolu incha allah li si kanam raw bët merci.